mooy àggali <clears throat> juróomeelu xaaj ci xaaji al ahkaam at taklifiya kii al mubaax l'autorisé ou le permis al mubaaxu fi lugati al mu'lanu mubaax ci luga mooy lu ñu annoncé lu ñu yëgle lu ñu xamle almuclanu walmadunu fiihi ci istilaaxu sharca nag mooy maa xayara alchaaricu almukallafa bayna ficlihi wa tarkihi bu dee ci istilaax mooy lu la chaaricu tànnloo joxe choix ci def walla bañ a def wala nga ne maa laa yataallaqu bi fi'lihi madxun wala dammun mooy loo xam ne du ñu tagg aji def ja deesu ko ŋàññi itam mooy loo xam ne def ko tagg xajuhut ca ŋàññi xajuhut ca atteem laa yatarattabu alayhi thawaabu fi lfili wala alciqaabu fi tarki lu dagan mooy loo xam ne deesul yool aji def ja waaye duñ bugal aji baja maanaa def ga ak bàyyi ga boo ko defee kenn du la yool boo ko baxee kenn du la mbugal lu mel ni lekk lu mel ni naan lu mel ni sol grand mbubu lu mel ni sol costume lu mel ni dawal oto dawal charrette war fas yooyu yëpp xeetu mu baax la baati mu baax mu baax danañ ko tuddee jaiz danañ ko tuddee xalaal yépp lu dagan lay firi bu ñu xoolee ci texte sacré yi nag dinañ gis ay siyar maanaam ay formule yu alquran wala sunna di formuler ñu xamee ca ne mbir ma lu dagan la lu mel ni baatu la xaraja déet amul problème yonentu sallallahu alayhi wa sallam ca ajam nga bésub tabaski muy bésub loj ga laajuñ ko keroog dara luñ njëkkee ak luñ mujjee lu dul dafay wax defal amul problème ifaal wala xaraja mooy dagan na laa xaraja siixa la ci siixul mubaaxi wala laa junaaxa dana nekk siira ci siir al mubaax lu tax ñu ne dina nekk ndax yàlla dana ko indi feneent te fekk dafay waral walla dafay soppuloo lu mel ni falaa junaxa alayhi an yattawafa bihima jumhóor dañ caa déggee ne safaak marwa ponk la ci ponki xaj al ahnaaf déggee ci ne du ca ponk waaye lu ñu sopp la sunna la ca waaye alquran dana jëfandikoo laa junaaxa ngir wane ne lëf li dagan na laa junaaxa alaykum in tallaqtum nisaa in tal <clears throat> in in nisaa ma lam tamassuhunna foofu yàlla ngi wane dara nekku ci dagan na mu ngi wax booba ci mbiru pase attey koo xam ne dafa fase soxnaam fekk te dëggul ak moom suratul baqarati aaye ñaar téeméer ak juróom ak euh, naka la tuddati ak fanweer ak juróom benn baatu xillu dana ñëw ngir wane ne lëf li lu dagan la niki waxi yàlla ji wax ci suuratul maidati aya 5 wa taamu alladina utul kitaaba xillul lakum ñami ñi nga xam ne joxoon nañ leen téere muy yahood yeeg nasaraan yi dagan na ñeel leen xillul lakum baatu xill la jëfandikoo foofu ñu xam ne dagan na lay bëgg a wax kon xillu ak laa junaaxa ak laa xaraja yépp ay siyaar lañu ci formulu mubaax ci formulu lu dagan siixatul amri tamit muy formulu verbe impératif formulu ndigal waaye bu amee indice buy indiqué ne ndigal la tekkiwut ne farata la tekkiwut ne luñ sopp la ndigal dana ñëw di farata dana ñëw di luñ sopp dana ñëw sax di tëkku ni ki i'malu ma shi'tum dina ñëw di xemele def ak bañ def ndax du jëriñ ni ki isbiru fasbiru aw la tasbiru waaye ndigal dana ñëw di daganal mooy bu fekkee ni xame nañ ca ay indice yu ànd ak ndigal la yuy wane ne lii duut lu war duut luñ sopp waaye lu daganal la ana loolu lu ciy misaal nañ jàng suratul baqara verset 222 fa ida tatahharna faatuhunna min xaytu amarakumullah yàlla ngi wax góor ñi bu seen jabar yi laabee ci seen mbërëg mën ngeenaa tëdd ak ñoom mën ngeen mën mën ngeenaa ak ñoom euh, tëraayu bànneex maanaam na ngeen fatuhunna la wax nangeen leen dikkal min xaytu amarakumullah fa leen yàlla diggal muy ca sëyukaay ba ndigal lii mu wax na nangeen sëy ak seen jabar yi buñ laabee ci règle firiwul ne sëyuk farata la ndi ndigal la du ndigalu farata waaye dafay wane ne dagan na lu tax mooy lépp loo xam ne dafa am lu taxoon ñu tere ko lu la taxoon ñu tere ko bu dëñee dafay delluwaat ca euh, attey cosaanam te attey cosaanu tëddëg sa jabar mooy dagan comme mbërëg a taxoon ñu tere la ne la faatazilu faatazilu nisaa fil mahidi ci même laaye ji balaa laaye ji jeex ñu ne la bu mbërëg ma jeexee laal leen soxna yi ngeen baal ma ci wax ji nangeen ngeen dikkal soxna yi ni leen ko seen boroom digalee mooy wane ne la daganoon te ñu tere woon ko ngir mbërëg moom la ndigal li ñëw di daganalaat waaye diglewuñ ko ngir ne dafa war walla dafa dafa di lu ñu sopp naka noonu wa ida xalaltum fastaadu yàlla dafa la tere woon bi ngay xarmalee bi nga xarmalee aj mbaa umra nga rëbb bi nga jógee ci aj gi walla bi nga xeewee ko mu ne la dem leen mu ne la demal rëbbi bu ngeen xeewee ko na ngeen rëbbi mooy wane ne liñ leen tere woon ci aj gi dagan na léegi ndax aj gi jeex na masalaa ngi ci wàllu ibaaxatu eh, cheikh shinqiti rahmatullahi alayhi wax na ci mudakki ne ibaaxatu muy ak dagan ci ñooñ usul ñaari xaaj la ibaaxa sharciya ibaaxa goo xam ne sharia moo ñëw wane ne lii dagan na niki sëy ak sa soxna ci guddi weeru koor alquran a ko tudd niki e, yi nga xam ne alquran wax nañu ne laa junaaxa ak e, sunna nañu la xaraja comme niñ ko waxee yooyu yëpp texte moo ñëw wane ne dagan na ni ibaaxa sharciya amee nee na noonu la ibaaxa aqliya amee mooy loo xam ne ci xel la ñuy xamee ne dagan na lu tax albaraatu albaraatu <clears throat> asliya mooy mbir yi ci wàllu aada léppay dagan lu dul lu tegtal ñëw ne xaram na ni nga xame ne ci wàllu jaamu yàlla fi féeg mënuñoo am fekk amuñu tegtal juy wane ne mën nañ koo def duñ ko mën a def moo tax bépp xeetu jaamu yàlla dafa soxla tegtalu alquran wala sunna wala lu ñu déggee ci alquran ak sunna te mooy tegtalu alquran ak sunna waaye <clears throat> lii cheikh Shinqiti yi wax nii ne benn bi mooy daganaluk sharia benn bi mooy dagganalu aq aq xel mane loolu de danañ ko nangu ci taqsim nazar yi waaye bu ñu seetantalee danañ xam ne ñaar yépp nag daganalug sharia la ndax lu sharia noppi yonentu sallallahu alayhi wasallam wax nañu ne yàlla daf caa noppi duul ne daf ko fàtte waaye yërëm ñoo tax inna allaha taala farada faraida fala tudayicuha wa xadda xuduudan fala tactaduuha yàlla farataal na ay farata bu leen ko sàgganee bu leen leen sànk mu jox mu dëxal ay limite bu leen ko jàggi bu leen traversé limitu yàlla yi fala tactaduuha mu ne wa xarama ashyaa fala tantahikuha mu xaraamal ay mbir bu leen xotti xormaayi mbir yooyule wa sakata an ashyaa mu noppi nag ci ay mbir rahmatan lakum gayra nisyanin ngir yërëm leen waaye du lu fàtte fala tabxasu anha la bu leen sob ba di ko gëstu hadis ba ju nekk ca daarul qatani alayhi ak kudul moom loolu nag bu leen ko gëstu wala bu leen leen gëstu nag loolu mooy ki nga xam ne xam na yi xaraam ak yi dagan yépp bu ko xamee yuñ tudd rekk mu xam ne yooyu dagan la waaye man ak yéen gannaaw xamaguñ yépp lépp lu ñuy dugg nañ ko gëstu wala man ak ñenn ci yéen boot ngeen baal ma wax nañ sànq ne mu baax mooy loo xam ne ki ko def du ca amuk pay aji bàyyam tamit duñ ko ca duma loolu nag mooy mu baax buñ ko jooyalee waaye am na ay suwar am na ay melo am na jamono yoo xam ne li daganoon dafay soppeeku lu war walla mu soppeeku lu xaraam walla mu soppeeku luñ sopp walla mu soppeeku luñ sip pas jëf ja ci boppam waaye fa muy jëme maanaa la tax ñuy jëf lu dagan dana tax mu war dana tax mu xaraam dana tax mu mujj di luñ sopp dana tax mu mujj di luñ sip dégg nga wax ci naar yi wala yaaram yi dañuy wax ne bi darbil mithaal yattadixu l xool soo léebee rekk wax ji leer mooy boo joxee exemple ñu joxe exemple mooy euh, maanaam exemple bu njëkk ci exemple yi mooy al aklu wa sharaabu wala al aklu shurbu lekk naan ci cosaan dafa dagan bu la leexee lekk bu la neexee naan waaye boo ci ëppalee nag yàlla ne wala tusrifu innahu laa yuhibbul musrifin bu leen yàq ndax innahu yàlla laa yuhibbul musrifin yàqkat yi kon ëppal ga daf lay jëlee ci mu mubaax yóbbu ci xaraam bàyyi lekk naan tamit bu la neexee bañ a lekk bu la neexee bañ a naan bu la neexee bañ a añ bu la neexee bañ a ndékki waaye bàyyi leen ñoom ñaar nag kulliyan daf lay xalak te yàlla nee na wala tulqu bi aydikum ila tahlukati kon bàyyi lekk totalement wala bàyyi naan totalement dafay xaram dafay xaram su ko defee kon lekk ak naan ngir wëttu sa yaram ba du alku dafay jógee ci xalaal jëm ci waajib bàyyi lekk ak naan abadan mën naa alak nit wala sax daf koy alak ci lul benn sikk sàkka kon dafa koy jële ci xalaal yóbbu ko ci xaram dégg wax ci lekk ak naan dafa dagan waaye soo ca defee lu ëpp mu araam lekk ak naan bàyyi ko dafa dagan waaye boo ko baye nara bàyyi ba faw mu xaraam ndax daf lay daf lay yóbbu alkande lëfa ngi nii dafa xalaal dafa mu baax dafa dagan te lu dagan mooy loo xam ne duñ ca fay aji def ja duñ ca mbugal aji baja waaye léeg-léeg def lu xaraam astaghfirullah def lu dagan dana jur fayu yàlla def lu dagan léeg-léeg mu jur fayu yàlla ana luy tax yéene ki nga xam ne dafay lekk ngir yaramam dëgër mu mën a taxaw jaamu yàlla wala dafay naan ngir dëgërloo ko am kàttanu jaamu yàlla wala mu ne xaaral ma teel a tëdd ngir ma mën a jog guddi jullil yàlla ay raka loolu de lu dagan la woon waaye yéeneem def na ko muy jaamu yàlla dañ ko cay fay moo ne lu dagan it dana mujj nekk lu war comme niñ ko waxee woon ci lekk naan mën nañ koo waxee ci jënd ngàndaay jënd ngàndaay pour protéger sa bopp lu dagan la waaye su jihaat taxawee nag ràññeeku ci yow jënd am wut ngànnaay wala jënd ko su fekkee ne amuloo ko jënd ko dafay nekk lu waajib jënd ngànnaay su fekkee jihaat taxaw na dafay war su fekkee nag jihaat taxawut jënd ngànnaay dafa daggan jënd ngànnaay dafa dagan waaye su fekkee nag ngir lor ci ku ñu warta lor la dafay xaraam misaal tamit ci lu mu mukallaf bi di def ci dagan ñu yool ko ci mooy sëy ak soxna yi niñ ko waxee woon sànq ne yàlla daganal na ko ci guddi weeru koor ni ko teg texte ba waxee fal aana baashiruhunna loolu ci dagan rek la waaye su fekkee nag mu mukallaf bi góor la walla jigéen ma ngay sëy ak jabaram boom góor walla jëkkëram moom jigéen te yéene ba mu ko defee mooy ngir sangewu ba du def lu xaraam du njaaloo yéene fegu ga mu am moo koy jox yool ci sëy ga muy sëy ak soxnaam xadis ja nee wu fi bud'i ahadikum sadaqa yonentu sallallahu alayhi wa abu dhar moo ko nettali nee na aw nit ci saxaaba yonantu sallallahu alayhi wa sallam dañoo wax yonantu ne ko yaa rasulallahi dahaba ahlu duthuri bil ujuri borom alal yi daal yóbbu nañu yiw yi yëpp yusalluuna kama nusalli buñ jullee ñoom ñu julli ñu yem ñoom wa yasuumuuna kama nasuumu ni ñuy wooree ñoom la ñuy wooree wa yatasaddaquuna bi fuduli amwalihim waaye nag ñoom am nañ alal ju ñuy saraxe ñun amuñ ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam ne awalaysa qad jaala allahu lakum ma tusaddiquun awalaysa qad jaala allahu lakum ma tasaddaquun ndax yàlla joxut leen lu ngeen di saraxe inna bi kulli tasbihatin sadaqa subhaanallahi bu ngeen wax sabbal yàlla bu ngeen def rek sarax la wa kulli takbiratin sadaqa allahu akbar bu ngeen wax sarax la wa kulli tahmidatin sadaqa sant yàlla gu ngeen def sarax la wa kulli tahlilatin sadaqa laa ilaha illa allah ju ngeen wax sarax la wa amrin bil maarufi sadaqa diggale lu baax sarax la wa nahyin an munkarin sadaqa tere lu bon sarax la wa fi bud'i ahadikum sadaqa nekk na ci pëy kenn ci yéen képp kenn ci yéen pëyam saraxan ci butu danañ ko firee pëy ci boppam waaye dana firi booloo mooy ku nekk ci yéen booloo ga muy booloog jëkkëram wala jabaram sarax la ko yàllay bind ñu ne ko yow yonentu ayati ahaduna shahwatahu wa yakunu lahu fiha ajr ndax kenn ci ñun dana dikkee bànneexam yool di ko ci ñeel am lu neex am yoolub yàlla yonentu sallallahu alayhi wa ne araaytum law wadaaha fi xaraamin akaana alayhi fiha wizr xanaa gisu leen su ko defoon ci mbon ndax du ci am ndax du ci am bàkkaar maanaam su jëloon su sëyoon ak kum warta sëyal ndax du ci am bàkkaar aha kay fa kadalika ida wadaaha fi lxalaali kaana lahu ajr moo tax su ko defee ci xalaal yàlla jox ko ca tiyaabo hadis jàng ci muslim numéro 1674 kon lu dagan dana wëlbatiku nekk ak jaamu yàlla ñu cay yool boroom niki ki yéene lekk ak naan ngir kattanoo lekk ak naan nga ngir mën a jaamu yàlla wala ki yéene nelaw ngir mën a teel a xeew julli ci guddi wala kii sëy ak soxnaam te jublu ca fegal boppam def ak mbon ci sëy ga muy sëy ak soxna sa yàlla dana ko ca bindal tiyaabu ni ko yonantu sallallahu alayhi wa sallam waxe naka noonu lépp loo xam ne lu nit di def la ci lu dagan yéene ja daf koy jëlee ci dagan yóbbu ko ca la tax mu di ko def walla mu bàyyi ko ci dagan su fekkee ne def lu dagan rek la ci jublu du ca am yool waaye bu ko bàyyi woon ni du ca am bàkkaar su fekkee nag daf caa am geneen yéene boobaa daf koy yóbbu feneen su fekkee it lu dagan la dafay yóbbu nit ki ci lu xaraam lu dagan la day mujj xaraam bu fekkee dafay yóbbu nit ki ci lu sip lu dagan la dafay mujj nekk luñ sip su fekkee dafay yóbbu nit ci lu eh, tabaarakallahu eh, dafa nekk wasila dafa nekk moyen yoo xam ne suñ ko defut duñ mën a def duñ mën a am li war dafay mujj nekk li war ni ki lekk ak naan su ko nit ki defut dafay dee te protéger dund dafa war boobaa lekk ak naan ngir protéger dundam dafay war dafay war kon nag mu ngi noonu alwasailu dañuy am dañuy am atay alxaayaat li ñuy mujjee mooy benn wuute bu boroom xam-xam yi am ci mu baax gii ndax ci juróomi atte yi ñuy wax ahkaam taklifiya la bokk walla dañ ko cee boole rekk figura figurativement maanaam sens figuré la ñu ne mubaax xukum taklifi la waaye xaqiqatan mubaax duut atte duut atte boo xam ne dañ caa togg nit dara jumhurul ulama yi loolu lañ wax ndax ñu ne ndax togg nit mooy digal ko mu def walla tere ko mu bàyyi te mu baax nag duggut ci ndigal pour def dugg ci tere pour ba lu ñu lu ñu euh, naka la tuddati lu ñu euh, lu ñu euh, lu ñu naka lañ ko mën a waxee ti baatu tubaab ba fàtte naa ko lu ñu autorisé la waaw kay mu baax lu ñu autorisé la waaye du loo xam ne dañ ko commandé wala ñu recommandé ko wala ñu interdire ko wala ñu détesté ko kon du ndigal du tere waaye lu ñu autorisé la moo tax kon buñ ko di boolee ci ak attey taklif yi dañ ko ci boole rek tajawuzan maanaa figurativement loolu nag bokkul ak li kaabi yu euh, bokk ci la ak ñu mel ni moom wax ñu ne ankay mu baax taklif la ndax def lu dagan du mën a nekk lu dul bu nit ki bàyyeelu lu xaraam te bàyyee lu xaraam luñ digale la kon nag boobaa def lu dagan dafay nekk luñ digle te buñ ko diglee rek mu nekk atte taklif maanaam mu nekk atte togg jëf waaye li gën a wér te lëng mooy li jumhur wax ne mu baax dañ koo tuddee luñ digle rek fi figurativement te jawuzan waaye fi nga xam ne fa la ko kaabi yu yóbbu moom mi ngi ko yóbbu ci mu baax su nekkee moyen pour def leneen jël atte booba te loolu discuter nañ ko du mu baax bi ci boppam moo yore atte ba waaye la muy jur looloo tax attey mu baax di nekk lu ñuy digle wala di nekk li ñuy tere waaye mu baax moom ci cosaan mooy loo xam ne autorisé nañ def ga comme autorisé nañu bañ a def ga waxtu waa ngi gudd ñu yemale euh, tabaarakallahu waxtaan wi fii di nuyu ñëpp di ziare ñëpp di suñu jarbaat suñu doom le docteur euh, Tafsir Sakho ca euh, France jot nañu yóbbante bi message weeg ñaan yi tabaarakallahu euh, di doom ci suñu mag ju baax ji xaaji Mouhamadul Habib Sakho bu góor gi xaaji Ibrahima Sakho ñu ngi lay ziar bu baax baax a baax di la wax ne kontaan nañ ci ñaan yi di ziar sa jigéen suñu jigéen soxna Asi eh, ca Paris ak tabaarakallahu suñu soppe bopp soppe Cheikh Seydi Ahmad Tijani radiallahu anhu muy Mouhamadou Lamine Mouhamadou Lamine Fall eh, tabaarakallahu nga xam ne moom Cheikh Tijani ñu boole ca Faas macha allahu eh, ñu ngi ñaan suñu borom boole ñu ñun ñëpp defaral ñu